kon ñu ngi sant bu baax tay ñaan li ñu fexé ba mu bari ci dëkk bi ngir nit ñi paj mi mëna jappandi ba ku ci bëgg jot jot ci te mu woyef ci yow te kenn bañati am jafe-jafe faju bërepp bi nak dinañ ci taxaw and ci ak wa Touba ci kanam ak wa gox bi wa Lansar fexé ba liñ ci liñ ci sentu ngir mu amal njëriñ nit ñi ñu fexé ba mu amal njëriñ nit ñi ci doxalin ak ci ñi nga xam ne ñoo fi liggéey war fi taxawu askan wi dinañ ci taxaw ba képp koo xam ne moo fi nekk fu war a jëriñ askan wi ñu fexe ba lépp nga teg ko ci yoon te ànd kook askan wi dara bañ leen umpule ci liggéey bi te euh, jàmbat yi nga xam ne ñu ngi koy jàmbat léegi léeg ci hôpitaux yi ñu fexe ba du fi am loolu nag dañ koy teg ci diisoo ak ci charte yi nga xam ne moom la ñu digle na noonu la hôpital di doxe loolu moom dinañ ko saytu taxaw ci ànd ci ak ñoom lépp nag ñu teg ko ci diisoo ak bokk bëgg lu baax bokk bëgg a taxawal askan wi ci seen wér-gu-yaram. wàllu personnel sage-femme d'état dina fi am dina am infirmier d'état sage bi sax dañ koy doubler mu nekk ñaari sage-femme ci démarrage bi nga xam li ñu bëgg mooy mu dem ba am ñeenti sage-femme nga xam ñaar ñi suñu liggéeyee bëccëg ñaar ñi liggéey guddi ñu koy awante mu bañ a am maanaam yenn tolof-tolof yi ñuy gis ci yenn bërëb yi. Euh, leneen li infirmier bu xarañ lañ fi indi koo xam ne dina mën liggéey bi xam ko du koo xam ne dañ koy indi di ko tàggat koo xam ne tàggat nañ ko li war ci liggéey bi yëpp xam na ko moom lañ fiy indi leneen li itam euh, personnel yi nga xam ne dinañ fi liggéey déjà am na demande yu bëri bañ ko tàmbalee tabax ba léegi nit ñi ñu ngi demander ay personnel qualifié pour ñu jël leen fi leneen li comme ni ngeen ko xamee ministère de la santé moom lii ñu fi defal moom lañ ko defal daanaka ndax moom moo taxaw taxawaayu loo yor loolu ci biir réew mi donc ku ci def rek moom nga ko defal ba tax dina ci dugal loxo monsieur le ministre rend nañ ko compte mu jël ay engagement ci taxawu bërëb bi li ci war yëpp mu mottali ko def ko kon loolu suñu xel dal na ci lool waa néew doole gi njëg gi xam nga li ñuy wax naan la santé a un la santé n'a pas de prix mais a un coût euh, xam naa njëg gi li ñuy xelal nit ñi mooy ñu dugg ci mutuelle de santé yi. mutuelle de santé trois mille cinq cent rek ngay cotiser at mi yëpp nga ciy faju ndax état bi dalay lay cotiser yeneen trois mille cinq cent yu tax di nga mën a faju ci at mi yëpp ci loolu trois mille ñett euh, nuñ koy waxee juróom-benni té juróom-ñaari téeméer waa nga def trois mille cinq cent xam nga loolu jàppandi na ndax tey jii ku bëggoon orange jënd carte orange junni ngay fay te benn te soo ci wootee du mat fukki fan loola jeex nga ci war a jëndaat.

cas social mooy ki nga xam ne néew ji doole la mënta fay kooku moom dañ koy teggal pay mi te loolu fépp lañ koy def koo xam ne mënta fay moom dañ koy teggal pay mi taxawu ko mais ñi nga xam ne am nañ pour mën a fay ñooñu foog ñuy fay pour ñi ci des mën ci jariñu tamit mais su ñëpp maasaloowee ne kenn du fay fii du dox te lii yëfu askan wi la donc nañu góorlu ba fexe ba képp koo xam ne war nga fay nga wàccoo ak la nga war fay fay gi nag day woyof ndax ñu ngi digal nit ñi ñu dem ci mutuelle yi ndax mutuelle moo gën a jàppandi mais soo demee bay génne sa poos tamit fi ticket yi ñuy def parce que lii social la du comme hôpitaux yu mag yi wala dara fii pay gi gën a bëri ngay fay donc tarif yi ñuy appliqué ci service yi rek mom lañ fay appliqué muy tarif service public yu tollok mom ma xama parce que poste de santé la donc li ngay fay ci yenen poste yi mom ngay fay fi parce que aussi foog ñu léral ko dafa am lu ñuy wax équité du yoon nga ni ñi bu len fay ni ñele ñi dëkk koñ bële dee len fay li dox ci yenen poste yi moy dox fi su ko defee nit ñi nag dañ leen di ñaax ñu fexe góorgóorlu dugg ci mutuelle de santé yi pour que paj mi mën a jàppale parce que même ñun ñuy liggéey nekk ay fonctionnaire dañoo nekk ci ay mutuelle ñun ku ci feebar dangay dem wuti ji lettre de garantie faju ndax di génn di fay ci sa poos pour faju dafa metti te léeg-léeg doo ko am wala doo ko mën kon li ñu ciy génne mooy nañ fexe bu dugg ci mutuel de santé yi gox yi nag gox boo laajte am na mutuelle de santé su fekkee ne xamoo fu mutuelle bi nekk mën nga ñëw ba ci kiy liggéey ci hôpital bi mu wax la fan la mutuelle bi nekk nga dem dugal fa sa njaboot dugg fa su ko defee saa yoo sa yaram sutantee nga mën a faju faju mu jàppandi. waaw dellu santaat yàlla bu baax di julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa di sant sëñ Tuubaa di ci am mbégte bu baax nag di ci am mbégte bu baax waaye nag euh, amuñ ci mbetteel wax dëgg yàlla dax xam nañu sëñ Tuubaa euh, li dëkkam bi li mu bëgg ci dëkkam bi li ay ay ay màndarga la ci rek waaye euh, doonu loo xam ne lu rëy rëy rëy la ci it xam ñi taxawal li seen gis-gis ak seen yene wessno fi bu lol lol ci ñi ngi rafet bu baax ne dañ ko égalé fañ ko bëgg égalé waaye euh du té ñu sante ak gërëm wa Touba ci karam ci serigne di kilifa gu baax gu mëna jité mbolo ko kuy digloo la <clears throat> kuy laaj la kuy nangoo jëfe xalaat yu rafet la mel ni Touba ci kanam nii ñu ko taxawale anam la yoo xam ne war naa mën a jur lu bare bare bare bare man de bokk naa ci ñi nga xam ne yàlla def na ñu gëm ko lool gëm ne mën naa jàppale dëkk bi ci ni ko sëriñ bi bëggee ci anam yu kawe njort ndax sëriñ bi am na lépp bu dee xam-xam la doomi yoon wi am nañ ko ba mat ba mat sëkk su dee ay jumtukaay layit am nañ ko ndax lépp ngi ci mbooloo ca mbooloo mi macha allah foo ko takk wees na ko ci kenn ku ci ne la nga yéene rek ci tubaa mën nga koo waxaale sa moroom xam nga ne moom la sa morom yéene wala mu yéene lu ko raw mel ne murid yëpp ci yem ci loolu ci lu jëm man ko li rek mooy am kuréel gu mel nii moo xam ne dana tegu ci aw yoon yoon wu dëgër woo xam ne it euh, nit ñi duñ ci am ak umpule waye it luñu mëna joxe sinu ñak bare ak neewit it nañ xam fim jëm loolu lu nit ñi soxla won la waye nak ay nit ñu ñu xam ci xam leen ci liñ leen wara a it ci dana tax mu dana tax nit ñi gën ci sawar mu melne kon tuwa ci karam jumtuwaayu sëriñ sëriñ bu mag bi la murid yëpp it nag war ci adhéré wu war ci war ci war ci jàpp war koo jàng war koo xam war ci jàpp ndax xam nañ ne jumtuwaay la loolu daal moo ci sama impression di wax rek ne am nañ ci mbégte bu baax ak yaakaar di ñaan sëñ Habib bi mu ko jiitee ak ñi ko àndal ñëpp yàlla yàggal leen te may leen wér ci dafa leen ndam ci liggéey bi. ginnaaw bu ñu nuyoo mbooloo mi yëpp di sant sëriñ Touba ci liggéey bi nga xam ne taalibey Serigne Touba yi def nañu ko euh, te Serigne bu Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadil jiite ko di suñu mbokk di suñu wëllëre euh, lu mel nii nag dara bettuñu ci ndax xam ne ne sëriñ Touba lépp lu ñu ko defal rek yaayoo na ko. te taalibe yi ñoo ci war a jiitu lii day wane rek exemple ne murit yi lu nekk mën nañ ko waxtu wu nekk daanaa ko faral di wax ne li ci des rek mooy organisation bi moo des waaye bu organisation amee danañ xam ne bari na lu ñuy jéggaane fi barab te mënal nañ ko seen bopp kon lii eh, nekk na loo xam ne rek luy tegtale ne na eh, li ci des rek mooy gën a yokk njàmbaarte gën a yokki xalaat gën a góor góorlu te xam ne Sëriñ Tuubaa li mu waxoon ne àdduna ci boppam moom jógul wuti ko adduna moo jóg fekk si ko ndax dafa wuti boromam bi ko àdduna toppee itam moom mu xam ne bu ko geesoo dana ko topp te topp mu koy topp du tax mu jot ko te duutu duutu àgg mukk ci boromam moo taxoon nee na moom mu wuti boromam rek bi mu ci àggee nag la adduna ñëw ak mboolem lu mu am andil ko ko kon mu ne woon nag lépp lu ngeen soxla ci àdduna it tege leen ci yoonu siraatal mustaqima te bañ koo wàcc bu ngeen ko defee rek lu ngeen war ko na wuti leen di fekk si kon loolu wane na ne lépp lu doomu aadama war a aajowoo rek boo tegoo ci yoon wi nga war a tegu taalibe yi danañ ci ànd ak yow te sëriñ Habib wan na ma léegi firnde ji nga xam ne moo tënku ci liggéey bi ak ni ñu koy doxale ak bépp dërëm bu ci mas a dugg jëm ci barab bu fajukaay bi fa ko jaarale lépp leeral na ma lépp te loolu nag mooy li am solo ndax nit ñi jamono bu ñu la joxee seen alalit ñi ngi xaar nga tontu leen tontu li nag benn mooy nga wan leen fi nga ko def wan leen it fi nga dugal xaalis bi lu dul loolu bu yàggee mën naa indi ay jafe-jafe te gis nañ ne fajukaay bii ñu liggéey fajukaay bu dëppook jamono la bu am qualité la maa ngi leen di wax sàng ne leen euh, fajkat yi buñ ko yéegalee ci daraja biñ ko war a yéegal muy gouvernement bi ak ñiy sàlloo mbirum wàllu wér-gu-yaram yaakaar naa ne war naa mën a wees sax poste de santé loolu kon taxawaay lay laaj ak yëg-yëg bu mat sëkk Euh, lii dafa jaadu ndax li tax mu jaadu mooy sëriñ Touba jaamu yàlla la santaane dafa waxoon ne dee leen jàng di jàngale di liggéey tey jaamu yàlla mu gis ne nag euh, jaamu yàlla gi mënta sotti te nit ki amul wér gu yaram kon mel na ne ku ko njëkk a defal lu mel nii ci dëkkam bi bu boobaa loola mel na ne yaa ngi taxaw ci li mu bëggoon bu baax a baax ndax bala ngaa mën a jaamu yàlla da ngay wér ba noppi kon nag loolu taxawaay bu rëy la te liit firnde la ci li am solo rek mooy wéyal liggéey bi. ci anam gu mel noonu bu ko defee taalibe yi gën a mën a tënku ci li nga xam ne lii ci la ñuy liggéey ndax waxtu wu ne itam euh, boo leen wanee li nga xam ne moom ngay liggéey fi nga koy def mu leer leen nàññi bu ëllëgee ñoom it liñ daan def dañ ko sawar a yokk ndax ku ko def ku nekk xam ne sa bopp nga ko defal te loolu rek mooy li am solo yoonu murit nag mën naa am lu nekk waaye boo jisee li ñu gàllankoor rek mooy ñàkk organisation loolu rek moo ñu gàllankoor mais waxtu wu nekk lu nekk mën naa nekk te lii nag taxawaay la boo xam ne bu ci ñëpp tënkoo rek liñ bëgg daañu ko am. alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin dañuy sant yàlla bu baax di sant Serigne Touba bu baax waaye di sant taalibe yi rawatina jullit yi nga xam te def nañ seen ñaq soxna Awa jëf ji moom du lu ñuy nattable jamono ji nekk ne dañooy weesu jamonoy wax jamonoy jëf lañ toll te waa Touba ci kanam wane nañ ko boo xoolee te fii ñu taxaw ni tey muy liggéey bu màgg liggéey bu sell liggéey boo xam ne dëppoo na ak jamono ndax léegi dañoo toll jamono joo xam ne soo dee liggéey da ngay liggéey loo xam te euh, dafay def éternellement maam day day dund lu mu gàtt gàtt cent ans boo xoolee ni ñu liggéeyee poste de santé bi ak jumtuwaay yi ci nekk ak ni ñu ko waajalee mën naa dem ba ca kanam a kanam a kanam donc nag loolu moom képp ku doon xalaat leneen mbaa nga ñàkkoon cee dox mbaa nga ñàkkoon cee taxaw tey jii boo dee am nga dara bëgg nga dara ci lu baax war nga am loo yëg sa yaram loo xam ne yow yaa ko xamal sa bopp waaye nag mënuñoo ñàkk sant ñi nga xam ne nii ñoo ci jàpp rawatina nag waa bitim réew ndax damay faral di wax ne lépp lu ñuy wooteel sëñ Tuubaa ci lu jëm ci wàllu alal bitim réew kenn mënu leen ci man yàlla dogal na ci commission boobu laa bokk xam naa ñoom seen taxawaay donte waa Sénégal gépp ak waa àddina bépp taxaw nañ ci mais xëy na ñi ëpp ci li ñu Sénégal yi ci wàllu liggéey bi dañu feete bitim réew waaye ñëpp lu ñuy sant di gërëm ñëpp muy liggéey boo xam ne daal tambalé la rek parce que bii mooy euh, première bi mais amna yenen ñet yo yoo ñing koy réaliser barki dem mondial lañu joxé ben champion benn euh, camion balayeuse boo xam ne moom mooy jumaa ak liko wër yoy yëpp ay liggéey la yo xam te ni waa Touba ci kanam ñing koy def kon dal dañuy sant yalla bu baax rek di ñaanal Cheikh Modou muntaha mi nga xam te ni moo ko nar a ubbi tey yàlla bàyyi ko fi ba liggéey yi ñu liggéey ci kanam yëpp mu ubbi ko bañ ca yebal kenn ci barke Serigne Touba. gannaaw bima nuyo nuyoo kilifa yi fi nek yëpp di nuyo di siyaare sëñ Mountakha di ñaan mu yàgg fi te wér euh, vraiment dañu kontaan parce que loo xam ne euh, askan wi ñoo ko defal seen bopp ci seen doole bopp laajuñ ci benn ndimbal ba noppi euh, xëy na teg ko ci loxo population yi loolu yaakaar naa ne mënuñu woon xaar lu gën a am solo loolu vraiment ñu ngi koy rafetlu bu baax di rafetlu seen taxawaay ci fànn yëpp nag dëkk bi dafa soxla bërëbu fajukaay bërëb bii nii yaakaar naa ne ndaamaatu moo ko gën a jege te boo xoolee fii ak ndaamaatu def na ay kilomètres donc vraiment day non seulement emplacement bi emplacement bu baax la dina amal nit ñi njariñ waaye yaakaar naa ne aussi dina tax coono yi nit ñi daan jànkonteel surtout jigéen ñi mu gën a wàññiku parce que fii tabax nañu poste de santé mais tabax nañu également maternité ci biir poste de santé bi ak ay logement loolu vraiment yaakaar naa ne exemple la boo xam ne war nañ ko wax euh, te itam encouragé ñi nga xam ne am nañu ay moyen ñu gën ci góor góorlu ndax Touba gabu poste de santé yi dafa dafa rëy trop vraiment kontaan nañu trop sama xol sedd na euh, gestion bi yaakaar naa ne warul am ay particularité parce que ni ñuy gere poste yi mën nañ ko gérer noonu def fi infirmier ak sage-femme mais également du leen superviser du veiller à ce que li nga xam ne dañ nit ñi ñoo ko def ak seen ñaq ñu teg ko ci yoon ba nit ñi mën faju mën ko jariñoo nañ ko war a jariñoo. yëg bi day maanaa ku di rek yëg nga ko ne man moo di euh, daana boore daana bari yu ñuy woote yoo xam ne dañ koy woote ba mu yàgg rek mu nax saay te nax saay ga koy war waral dañ ko dul jëmee fa war a jëm kii nag woote gii ñu woote muy Touba ci kanam. mel na ne da wuyu naw turam ndax mi ngi jëm ci kanam ndax li ñu ciy doon laaj de ña ko joxe woon buñ dikkee danañ gis soñ ko def loolu nag mooy doxal mbir boo dee laaj da ngay laaj lu ñu man te di koy def fuñ euh, euh, maanaam fa ñuy gis boo ko defee lépp na dem ñii nag bañ tàmbalee ba noppi dañoo tàmbali rek tàmbali di euh, réaliser lu ñu war ki def yëpp ndax lu mel ko dikk fii tey jii day da nga xam ne hôpital bii nii mu demee ak bañ ko euh, soseeg léegi ni biñ ko biñ ko tàmbali léegi ni mu gaawee da nga xam ne ña koy def ci positif lañ ko teg te it ma ma nga Tuubaa jëm ca kanam dañ cay waxe ma ngi cay dox bu baax a baax a baax noonu nag euh, euh, nooy waa waa daara kamil ji nekk ci jumaa ji jóg di dem fenn nag fii dong lañ ko mas defee daa mel ni yàlla na dimbali nañu ci ba biñ ko defee gis nañ ne lan ca doon wut am nañ ko ci muy lu lu lu buñ nu wooyee nu ñëw def mbir yu bari dañ ñu ca woo te duñ ca dem. waaye bii moom bi ñu te wooyee daa mel ne suñu xol yëpp dafa ànd ci fekk gis dikk ci te dikk gën ci lañ ci doon wuy wut si gis nañ ko ci mu yàlla ak Serigne Touba dong dong leneen nekku ci kon nag dañuy sant bu baax a baax loolu it moo ñu yëkkati woon tey ji ñu ñëw fi ñoom seen bopp sax am na lu ñuy warlul ñu xam nañ ko bu baax a baax a baax seen yéene xam naa àgg àggagut fa mu fa kii waaye noo ngi ci seen sant bu baax a baax a baax waaw. ndax lu mel ni taalib yi def ko seenu ñàq yoonu nekku ci. wane na ne maanaam fu ñu bëgg jëm rek buñ àndee mënees na mënees na ko def mu doon loo xam ne ñëpp ci gis seen bopp te njaboot gi nga xam ne sëñ bi leen njaboote dara jiitu ci donc yi nga xam ne xañ na <coughs> aajumoon nañ ñooñ ay taxawu ci wàllu paj ak ndimbal kon buñ defee lu mel nii lu ñëpp rafetlu la di ñaan xanaa gën a soññu dong yëpp rek ñu gën cee jàpp xam ne daal lu ñu bëgg rek buñ defee nii ma des na cee mën am bépp résultat bu ñu bëgg la waaw ndax boo xoolee ni ku tedd ki defoon eh, ngir ñu taxawal jumaa ji wane aw yoon la si jubluwoon waaw wane ne wane naa wane naa ne aw yoon ndax ku la mënal sañal la te nit nag bu fekkee bëgg ngaa moom sa bopp taxawaay yu rek a kon ñu ngi ñaanal kilifa ci kanam di ñaanal Cheikh eh, Mouhamadou Mountakha eh, yàlla yàggal ko lool waaw te it dañoo nekk ci réew moo xam ne développement lañ bëgg dañoo bëgg a jëm kanam te développement mënta ànd ak yàq nee ñu boo amee sa benn euh, siwo boo xam ne di ko duy bënn taati siwo bi siwo du mës a fees kon su fekkente ne dañoo yor réew moo xam ne nee ñu ki fi nekk njiitu réew dafa bëgg réew mi émerger émergence mënta am ci bu ñu amee askan woo xamante ni lépp lu ñu yor dañ koy yàqaat amul benn réew ci àddina bi boo xam ne développé wu na àgg na fenn fi bañ boole ko ci réew yi gën a gën a gën a gën a kawe ci àddina bi te yàq may leen ko liggéey leen ko may ñàq te it am ci li ñuy liggéey ñu koy defaat ci askan wi kenn ku ci nekk di ci mën a gës sa bopp waaye li ñu gis euh, léegi ci réew mi dafa jéggi dayoo bu njëkk ci xew yi la yemoon nga gis koo xamante ni day dajale ay millions benn jigéen ñëw benn bés jël ñetti millions yëpp yàq ko ci benn xew ñu xëy la lendemain kër gi duñu am lu ñu dëkkee euh, wala mu am kenn koo xam ne doomam la ci kër gi amul xëy day xëy di toog ci kër gi ñetti millions yi suñ ko joxoon mën a doon départ ci moom ngir mu mën a mën a mën a mën a liggéey wala tamit mu nekk kër goo xam ne boo xoolee seen situation sociale demeewul noonu kër ga demeewul noonu ñetti millions yi suñ ko juróon def ko ci kër gi tabax ko kër gi mën a mën a mën a mën a gën a rafet waaye loolu yëmul ci xew yi dafa dem ba léegi dem ci dëj nga gis koo xamante ni tey bu amee dëj ñaanaluñ ko kenn

Euh, muy loi boo xam ne da doon tere gaspillage ci cérémonie euh, familiale yi loi boobu dañ ko war a indiwaat ñuy tere gaspillage bi dafa jéggi dayoo léegi ci réew mi yàq gu metti te loolu mun a ànd ak réew moo xam ne day développé day jëm kanam te loolu ci suñu mbokk soxna yi ci la ci ci la paie voilà. facile la maa ngi waxee ci turu euh, daayira Matlabul Fawzeyni bi nga xam ne ñoom ñoo nekk nii la Matlabul Fawzeyni ah yëg-yëg bi ñu ci am rek mooy sant yàlla bu baax a baax. ndax it euh, euh, bu fekkee ne nit ki daa am loo xam ne lii daf koo def lam man la ca des mu yéene ko te mënu ko bu demee ba yàgg mu gis ñu lam yéene woon ñu koy def la cay sant yàlla te la Matlabul Fawzayni ñëpp xam nañ ne wàllu santé euh, ñu ci teel a dox ay jéego lañ kon bu demee ba tey waa Touba ca kanam walbatiku liggéey liggéey bu mel nii ñun waa eh, Touba ci kanam sax laay wax ndax Touba ci kanam ñun ñëpp ñu leen bokk ndax eh, sëñ Saliou dañoo waxoon ne lépp luy jëmee dëkk bi kanam rek su ngeen ca waxtaanee ba jubo ànd naa ci ak yéen lii nag bokk na ci lii jëmee dëkk bi kanam kon nag eh, sant nañ ci yàlla yëg-yëg biñ ci am rek mooy sant la ca des nag mooy nun ñëpp rek nu jàpp ci euh, fexe rek yéene bi ñu am euh, nu fexe ba yéene jooju mën a feeñ te loolu euh, kenn ku ne loxoom a ngi ci loxob dëkk baa ngi ci loxob docteur yaa ngi ci ndax it wér-gu-yaram ñaara ko séq kiy faju ak kiy faj kon ñii faju nañ nañ ci jàpp seen kamtilaayal kàttan Euh, jàppandal leen ko waaye ñii fajit nañ dimbali seen kéemtalaay kàttan jàppandal leen ko ba liggéey bi mën a mën a def Touba ca kanam nag euh, liggéey la boo xam ne bii la Seex Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma waxoon rek euh, loolu la ñuy doxee di laaj nit ñi lu man di ko def fuñ xam kon li ñuy laaj bëriwul yomb na ci kenn ku ne waaye fi ñu koy defit xamis na ko te am na njëriñ te mooy dëkk bi kon nag ñun ñëpp rek ñu gën a taxaw ci liggéey bi gën cee jàpp di leen sant yéen waa presse bi yéen tamit ndax. ndax dañoo war a bàyyi sax yenn ci ay dëj sa naa man saraxu ayubés dama koo contre ndax man gis naa ne jigéen ñi léegi ay waxtu rek la ñuy jooy ko faatu li ca topp lépp xawaare lañ koy def ak wéeroo seen kol wéeru ci bërëb ku ñëw ñu tudd la ku leen won gannaaw ñu tudd la ba ngoon jot dañuy dem di jaale ji dañ fay jëlee bàkkaar yóbbee ko faatu bàkkaar ndax yaakaar naa nit bu faatoo war nañoo tal leneen lu nekk fa di jëw ak di wax lu seen yoon nekkul ak di xawaareek may jaam ak joxe ay njaxal di ko bind war nañ koo ñaanal ay xulwa jéggalul ko boromam ndax nit bu faatoo malaayika yi la ñuy ñëw te buñ ñëwee luñ dëgg rek la ñuy bind kon war nañ bu nekkatee ci daj ñu bàyyi xel bu baax ne malaayika yi ñun ñoo ñu ngi gis waaye ñoom gisuñu leen kon nañuy seedal nit ki lu baax te di ko ñaanal ay xulwa yàlla jéggal ko ndax alakhira kat metti na gas bam xóot gasul metti na te ña demoon desuñ te kenn xamul lu fa nek kan kenn ku nek na tal bir bamela ndax bir bamela xatna lol te kep ku ci nek war nañ la sakul ak jéggal di lay ñaanal suñu borom yàlla jéggal la leeral sa bàmmeel waye nak dem ci sop dëj di fa waxtane mbirum aduna di fa jëw di fa wax lu seen yoon nekkul wala ñuy def ay bop neen tek ay gerefaas diko yóbbu ci ay dëj lol lépp dañ ko contre jigéen dafa wara sutural aw yaramam sutural jëmam respecté bopam ñaan ci yàlla yéen tamit ak Serigne Touba Mbacke yàlla na ngeen fi yàgg yéen ñu ko fi def Touba ca kanam yàlla na jëm ci gën a jëm ca kanam ndax lii kan ñun ngeen ko fi defal ndax man de dama daan yeewu 5 heures dama tey dem wuti ticket bala maa dikk sama waa kër añ ba noppi te loolu yëpp jeex na fi tey seex Bassirou Sarr jaamu suñu yàlla na yàlla dolli leeram sëñ sang Sarr yàlla na ko yàlla muy wér soxna Bintu laa ilaaha illallaah hôpital bi kay macha allah yàlla nañu ci yàlla fal cat dimbalun musal nu ba lépp luñ ci bëgg nu eggale ci barke Sëriñ Touba soxna bint Bass mi nga xam ne nag moo waral li lépp am woonu ca Touba ca kanam yàlla na ko fi yàlla bàyyi lii moom du sens a méritam la. ah man Seyna bu mbay de man ba mu amee tamit ma jënd sama ñaar téeméer sama sëriñ par juróom lay jënd ndax sa Touba ci ku lu ci waaye def defaloo kenn sa bopp nga ko defal ak Sëriñ Touba. kon nag dañuy fas yéene def ci Touba ca kanam rek yow doom yàlla na la fi yàlla bàyyi ci barke Serigne Touba ngeen yàgg ca tubaa ca kanam jërë ngeen jëf yàlla neen yàlla fay barke Serigne. seetlu na baax na yàlla ko yàlla saxal te yàgg fa ca wér doon doole ñu xéwal ak say <coughs> say mën ñu xéwal ak say kii. <coughs> waaw ndaxte da léegi dong laa ñàkk xale bi waaye kër si ñaan laa ko ñàkk ji kon nag li waaw ah, moom kay yoon rek lañ bëgg noonu ko yàlla defal. sëñ Basir Sarr mi nag maa ngi koy ñaanal moom yalla yàlla serale ya xam Allah àllaaxira sama dom ji la fi may pak mu fi jangal alquran ak daara jangane yok yokku yok yokku rek yalla yok yokku rek ndax sama borom ko sax mu ci yor ci carte mo sëñ Moustapha ñang ñun ci lañuy dag Touba kanam ñaar ma nga kër sama a yor na ci sama borom kër yor na day jangal alquran